mu xamle nee na xamul lan moo ko waral xamul lan moo xew ki nga xam ne sax mooy jabaram moom dafa naroon a xaro yéen kaay gii di réew mi dikk ci ñi nga xam ne ñooy charlatan yi maanaam sëriñu tariyaax yi maanaam bëri na ay tappale yoo xamante ni ñoo nga sa am na ay sëriñ yoo xam ne maanaam dañuy fexe ba jël sa xaalis am na si nag ñoo xam ne dañu lay jox loo xam ne soo ko naanee wala nga lekk ko nga tàggoo ak sa sago lu ñu la def loo nga def ko am na si sax ay sëriñu tariyaax yoo xam ne léeg-léeg dañuy jox jigéen loo xam ne su ko naanee wala mu jëfandikoo ko maanaam dafay tàggoo ak sagoom ñu yegg si kawam te nag ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi bëri na si ñoo xamante ni dañoo bëgg ay sëriñ teg si maanaam seen bopp nooy lool am na si nag ñoo xam ne ay millions la ñuy faral di jël si ñoom am na si ay sëriñu tariyaax yoo xam ne li ñuy wax jigéen ñi mooy su ma la tëddeewul maanaam ñaan gi nu nango bëri na ci tribunal bi ay cas yu mel noonu yoo xam ne ñoo ngi ko fay àtte l'observateur ak Sud Quotidien ak le témoin xëy ci jafe-jafe ñi nga xam ne am na ci magistrature bu Sénégal Ousmane Kane mi nga xam ne mooy premier président cour d'appel bu Kaolack niki démb inspection générale de l'administration de la justice daan na koy dégloo procureur général bu cour d'appel kaw Kaolack moom tim démb bu déglu nañu ko magistrat Ousmane Gueye moom tim déglu nañ ko surnal bi nee na tey jii Yaya Abdoul Dia moom tim ñu ko déglu yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas scandale giraawal yeeg tojaange yi nga xam ne maanaam am na ci sunu magistrature bi bëri na loola yéen a kaay gi de la témoin nee na tojaange yi nga xam ne moo nekk ci magistrature bi maanaam kenn du si wa waaye nag lu si waay wax rek am na loo bàyyee maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum justice ci réew mi ni ki démb démb dalal na syndicat bi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi nekk ci ëttu attakaay yi maître Pape Leyti Ndiaye mi nga xam ne moo jiite avocat yu Sénégal ak maître Doudou Ndoye fekk woon nañu waxtaan waa ak nag membre au conseil dialogue social ak association des juristes africains ak ma UNSAS Mademba Sock moo leen représenté woon journal bi nee na démb 17h la ñu commencé waxtaan ba 23h ñu daal di ko fay dagg waaye nag ñaar fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi ñu dëgmal bu 17h la ñuy continuer waat li nga xam ne maanaam mooy waxtaan wi ndax nag réeroo amul ñàkk waxtaan moo am journal bi sax njort na ne maanaam jàmm dina daal di ci waat ki nga xamante mooy maître Malick Sall dafa wax syndicat bi na leen grève bi nag jamono ji comme commencé nañ waxtaan yi teg lañ ko suufa ñoom maître Aya Boun Malick Diop la ko xamal mooy dañuy dem nag sa cëslaay la maanaam waxtaan ak ñoom xool ban dogal la ñuy jël yéen kaay de Dakar Times mu xëy di ñu xamal lan ñu coup d'état bi nga xam ne moo am Mali loolee moo tax fan yi ñu génn waa e e CEDEAO a piraté réew ca tugal boo xam ne maanaam moo espionné chef d'état yi nga xam ne ñoo bokk ci CEDEAO mbooleem loo xamante e e ñoo amul commission de cybercriminalité boo xam ne maanaam dana daal di a kaay gii di yi nga xam ne ñoo def coup d'état bi ci ñoom ko ni ko démb ndax presse bi dañoo wax ne nee nañu dañuy téye réew mi lu toll si ñetti at militaires yi nee nañu loolu lu ñoom musuñu ko wax te Ibrahima Boubacar Keita maanaam moo démissionné ci teyaayu bakkanam yéen kaay gi di source a mu xëy ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di président Macky Sall njiitu réewum France di Emmanuel Macron niki suba ci àllarba ji dina ko daal di recevoir yéen di réew mi nee na la nga xamante ni moom la ñu fay waxtaane maanaam mooy crise bi nga xamante ni moo am Mali ak lu jëm ci ñetteelu mandat yi ñuy ngawte ngawte ci déndu Afrique lu jëm ci wàllum sécurité Afrique ak lu jëm ci wàllum franc CFA ak bor bi nga xam ne réewu Afrique yi bëgg nañ ñu baal leen ko loolee lépp danañu ko daal di waxtaane ci biir loolu njiitu réew mi di président Macky Sall patronat bu Sénégal maanaam ñoo koy gunge da leen a invité ci rencontre bi nga xamante ni dina am ca MEDEF MEDEF gi nga xam ne jamono ji dañ koo tuddee renaissance des entreprises de France yéen a kaay gi nee na béy de añ bu CNP ak président Mbagnick Diop bu MEDES ak Babacar Ngom ñii jiitu nañ président Macky Sall ca Paris la France yéen a gi di Esat xëy di ñu xamal lan ñu est-ce que Idrissa Gana Gueye maanaam dana des ca Paris ndax nag li ñu koy ŋàññi bëri na ñu bëri dañoo jàpp ne Gana Gueye waneetul ak xarañte fa Malick Daaf la mu nee na Idrissa Gana Gueye wóor te des Paris Saint-Germain yéen a kaay gi di sunu làmb xëy ci Balla Gaye numéro 2 mi nga xam ne lépp lu mbër di def ci réew mi mën nañoo jàpp ne def na ko ndax nag Modou Lo mi nga xam ne moom la Balla di jàpp maanaam fu mu ko fekk di ko kekkantoo di ko yëkkati di dóor suufa ak Yaxya Jóob Yékini mi nga xam ne toog na lu yàgg-yàgg kenn daane wu ko Balla Gaye 2 jàpp ko defal ko affaire ak Mohamed Ndao Tyson ba ko Balla di daan ci ay digg ndëndam la tolloon Balla daal di koy toroxal jamono ji nag yéen a li mi laaj lan moo dese Balla ci làmb ji Conseil sénégalais des chargeurs